ben phase projet bu nek bi côté suñu digganteeg Mauritanie rek soko ko xayma alalu Sénégal yépp nu mu toll mu ngi wax suñu PIB comme comme réew mi lu day non nu ci investir pour mën a pétrole muy 15 milliards de dollars xam nga loolu du alal ju ndaw donc Cosmos amuko Timis amuko ku mel BP moko am ku mel ay Exxon ku mel ay ku mënti gis pétrole ci aduna bi il faut nga wo kenn si ñooñu nu ñëw donc ñooñu bu ñu leen nu ñëw wara exploiter pétrole bi génnagul fofu nu tollu tay gaz bi génnagul nga bëgg xam luñ ci perte wax dëgg yàlla man dina ma jaaxal xëy na boog damaa déggul wax bi wala damaa déggul laaj bi wala chiffre yu may dégg yi man xaw ma fu mu jógee te mënuma ko dëggal état du Sénégal pertul dara dara dara parce que exploitation bi ñëwee benn sociétés yi daanu fay impôt loolu ci keesu nguur gi la jëm Petrosen mu ci am 20 pour cent dina jël bénéfice am te Petrosen société nationale donc mën naa wax loolu mën nañu ko dugal ci ci gafaga état bi mais état bi ci boppam daf ci am ay revenu yi nga xam ne moom nunu signé ci contrat bi man bu ñu ko xaymaa nun ministère de du pétrole et de l'énergie revenu yu ci état du Sénégal di am donc askanu Sénégal di am su dee ñetti xaaj la ñaar ñi réew mee ko moom benn bi la ñu ñuy gëstu ak di ko liggéey di am à peu près 67 pour cent la ci état bi de am soo boolee paaram ak paaru Petrosen rawatina nag boole ci impôts yi nga xam ni état bi da ko ciy jël. parce que loolu du ci ñàkk ndax société bu fi liggéey def fi alal di nga fay di nga fay imp donc su dee ñetti xaaj mën mën nga wax ni ñaari Sénégal lay des benn bi moom la compagnie étrangère yuy liggéey fii di di di yóbbu.